be ya yi kuni yes I'm there Tay yi da mu overson ke daga sona ta yi sadanga tela wace da bapare no hamar mota mata yara wace parce que tay sa añ. da makota ta yi mai bis bu mujju ci wéru koor bi dama wara a jël sama temps añ lu neex lo tax ma teel a wàcc. nak nag loolu togal la sa favorite. ah sa favorite la tok parce que xamna naa ne tey nag moo bes bu mujj balaa wéri kol tay la añ bu futteeku. te xam ne da nga bëgg a non tey laay añ ba mais lén rek moom jaax sumay dox di dajé ay jigen dafa melni ay gor lay dajal. ah baby yo tamit bay fi jonga bu mu melni man di hol kenen si wa lolu mom deug lo. ah yo lolu boko defé dañ la jek pire la yor. te nag su ma toogee place di liggéey sama xel mépp ci yow lay nekk am na loo ma def de. defuma la dara. Eh, waxal am na loo ma def. pourtant defuma la na. yow sa affaire leerul de <laughs> ba baax na indi añ bi nag te dama bëgg waaj añ bu baax ba nga xam ni añ naa. di nga añ ba suul nag. ah waaw. la dëgg sa tànk yi dox normal xaw ma fi doo jiitu dox. doo ma xool. lu ma lay xoolee naaj bi tànk bi dama mën a. awal nii rek nga bàyyi woon. da ngaa da ngaa da ngaa soof trop. bébi eh. añ bi neex na bëri na macha allah. tey moom añ naa waaw añ naa de ma añ dëgg yow de lekk loo dara. yóbbul dama soxla after. plaisage bi neex na de. tey moom las añ bi dafa mel ni dafa gën a saf. wax naa ah. dama la soxla léegi. baax na ok. sweetheart laa la ñaan. maanaam sëñ naw leen faa fekka. te nekkut suñu kër suñu demee gis nga man ni ma doon dunde suma kër fii laay dunde laay dunde fii yaa may dégg baax li ma ñoom ñoo ma woo man woowu ma leen listen dañu invite ñu ñëw fekki leen koor mënoon nañ koo def suñu kër léegi lu tax ñun bàyyi invite ñu lu tax bàyyiwuñ moom woore sama kër listen rek nit si la ooyee si këram nga jox ko ciram understand nga yuuxu bi ak luñ nekkee suñu kër li wax nii waxuma ko man daal li ma lay xamal mooy suma kër na ma fa nekk woon laay nekk ci kër suñ ko manee baax na suñ ko mënul ñu ba ma ma dellu fu ma digoon man Gambia xam naa fi de buñ ma bawut am naa feneen foo mën a nekk loolu leer laa la wax nag. yow nag da nga difficult to communicate with luy sa problème maa laa waxal lu make sense nga maa wax loo xamante ne yow mu suñ kër nuñ fa yuuxee foofu suñu kër la am nañ raay def lu ñu ne waaye fii suma ma kër yi mag la. nekkul léegi léegi léegi man maa leen wax ne ma ñëw fi du ñoom ñoo woo. léegi suñ la ooyee daan li la neex nga fii def. waaw sa kër la yaa ko tabax. ñoo ma woo. waa léegi ba si lan. nu ma neexee rek. dama ko kóoloon ni ko jëkëram liggéeyul fan yi ma ne ko ni ñëw mu woore fi moo gën a neex ah yow loolu neex na ma man nag naa la ko wax loolu neex na ma hmm. loolu loolu baax na parce que ñu dañu wéet sa si kër bi waaw loolu moom dëgg la wax. Ah, loolu neex na ma kontaan naa ah kontaan kontaan naa xam naa léegi tey rek du yàgg dara incha allah tamit mu ngi ñëw ndax woo na ma ne kool na ma nee na départ la mënu ma xaar hmm. ok kër baa ngi nii it's either nga behave or we better leave bu la neexee Ibrahima loolu man amu problème Ibrahima ok ok eh tawal tawal dugg dem salaamaaleykum maa ngi lay dugg te xamoo waa lii la eh? waa lii la eh? kontaan naa gis naa ni ma téye macha allah bëgg na ma bëgg na sama bopp yéen daal ñu ngi yàlla. salaamaaleykum. maa ngi salaam. Eh, Aïda. oh sama rakk bi ñëw na. <laughs> nam naa la. salaamaaleykum. Eh, Modou. Modou naa def. Modou gëj la gis. maa ngi sant bu baax. naka yi. nga ngi rek. na ngeen def ay nga ngeen dox ngeen commencé dox la fi dama ay kontaan na nag ci li ngeen def. Ah, ñew wor ci li lu bax la. nit amay mbokk day dem di nemmeeku ay mbokkam ca nungul nga ko lolu deug yalla kon kontaan na ci li ngeen def. Ah, wax deug yalla day kérok bam ne ma sama mag dama wo waaw bëgg ngeen wor ci fa. Mm. teguma ci baat. Mm. ndax dama xam mom mi mm. suma gën wal la. mënu soxla ci man dara ma di ko xal kérok bama woyé woowee ma suma mag ne la bëgg ngeen wor si teguma ci baat dama na ko suñu ñew su wala koor. sama soxna sii da ko bëgg sama soxna si ñaar ñaari yoon mi may woo naan ma Aida ayda ayda daa war a ñëw daa war a ñëw mool. Mhm. sama série amul benn problème. Mhm. macha baax mhm. nuru na ko nag nuru na ko nuru na ko. kanam gi moom nuru na ma kanam ku <laughs> ah. ah, moom <laughs> ngay jàng ci moom. léegi ni ngay def kii daa war ngay jàng ci moom gis nga jegeñee bi ni mu jegeñee kee. <laughs> ñii. cikau, kaw dégg bu ñu paree boo leen ba ba pare ngeen wàcc ñëw aña ok yóbbu leen ñëw ci kaw bu ñu paree Dedet, dedet, dedet, dedet, jadi déedéet dem ci kaw nan añ ba déedéet nan añ ba pare doog a yëg ci kaw saako ba pare ñu añ saako ba defu dara du taxaw di añ ah, ay dama la dëgg léegi ni ngay def mooy demal nga indi ñaxam yi nanoo sonn mhm. dégg nga nañ de nañ lool ba ci ah <laughs> waaw kay yoon métti na lool wax dëgg yàlla suba la ñu ngi góor kon. kër gi Cheikh moom lu ku fi nekk bañ a woor ak yooyu. loolu foofu. ah foofu am. xanaa dafa wax ci alxuraan ne boo nekkee ci yoon dañ lay wàññi sa julli moom da lay lu ma xam ba xam mooy di oor par force lay oor. dama ne woor moom munuñ maa woor loo te neexuma. ñun dañoo nekk ci voyage te ku ñu nekk ci voyage koor wàcc na la kon ren kër gi fii ñun waroon na wóoroo. dëgg yàlla sa voyage bi egguloo fi xëy na. ñaata waxtu lañ daw. basi lan loo miin si kër bi ñàkk a oo rek di dogal yooyu du fi amee de. kaay kaay ma xamal la gis nga koor kat force. mbaa xam nga ne woor force. pour yow. force de. koor kattan la olof wax julli foo ñime yaa may dégg te ñun kilomètres yi ñu dafa bëri amatuñ kattan bu ñu waree wax dëgg yàlla weeru ren moom lan koy teggee ah. gisuloo sa yi nga nekkal mag ak jabaram ñoo dégg mooy sama yoon ci say nawle. dinaa la xamal benn affaire woor moom mënu leen ma koo def loo te neexuma du force danga koy man def ko soo ko danga koy ba. or for snow on Phi Lapis.